donc euh, chers internautes yu ñu seetaan merci beaucoup ci donc euh, li nga xam ne moom mooy euh, grand combat bi donc yegg si nañ ci ci nag fi nga xam ne moom mooy stade Elimane Fall bu Diourbel stade Elimane Fall bu Diourbel nag ci di drapeau Bamba Dieng di l'international di le champion d'Afrique organisé par Sidi Diakhaté production ci ah, di ma ca Thiès di ñu mbokk yi seetaan bu baax yëpp nga xam ne ñaari mbër yi nag nga xam ñooy jiwe ñoom ñooy sëñ drapeau bi di ay ñoom ñëpp ay doomu Bawol lan doomu Mbàkke moom moo nekk noonu euh, ci sunu ndeyjoor euh, bumu cas kii moom moo nekk noonu sunu càmmoñ en taille longue donc ñoom ñaar ñëpp arbitre yaa ngi leen di arbitre nan buubu cas nan doomu Mbàkke gis na noonu muy muy donc mbokk yi gis nga tamit boobu jas mi ngi noonu tamit di xëccu alors euh, donc mbokk yi kon donc euh, lépp nag jeex na nag ngeen ñu ngi euh, ci nekk nag yaa ngi wane say xuppaate da ngay xuppee nag nga xam ne moom mooy sa adversaire arbitre bi wax naan ñoom ñëpp seet nañ leen dafa mel ne nag dañ leen di wax nag ñu taxaw seen place dafa mel nag mbokk yi dañ leen di wax ñu taxaw seen place di nag benn di nag di nag bis bu doy waar la ñoom ñaar ñëpp doomi Bawol lan ñoom ñaar ñëpp doomi Bawol lan sànq bi ñu déparé fële nga xam ne mooy Mbàkke ci kër euh, doomu Mbàkke arbitre bi nee na nee na pare nee arbitre bi sifflé na doomu Mbàkke ngay wër doomu Mbàkke ma ngay wër dem ca ñu ngi cas kii ñu ngay léewtoo moom Mbàkke moo ñu woon gannaaw bu mu test moo ñu woon kanam dafa mel ne maanaam yëf dafa nar a gaaw de déplacement vers gauche de doomu Mbàkke ma ngay euh, dem na ca angle saako ya gis nga ah doomu Mbàkke ngay bëgg a ngay bëgg a génn saako ya ay eh, doomu Mbàkke tibb na ko doomu Mbàkke tibb jël na ko doomu Mbàkke takk na ko bu mu jël na ko doomu Mbàkke takk na ko eh, du yomb ee du yomb ee du yomb ee du yomb ee du yomb ee du yomb dafa mel ne doomu Mbàkke daal li mu wone daal moom mooy que ni xuppaate bi ak nappaate bi yooyu yëpp jeex na ah doomu mu ngi koy doomu Mbàkke mu ngi koy jéem a yóbbu buuba mu koy boot waaye doomu Mbàkke daf daf koo kor gis nga daf koo kor bu Mbàkke daf koo bëgg a mbot jàpp na ah bu boobee xool nu muy maanaam xëccee doomu Mbàkke bi ñëw combat bu nar a gaaw a góob ah donc donc formation bi ah xalaat bi xalaat bi ci la nekk. ku nekk maanaam xalaat mooy génnee ci situation boobu noonu waaye dafa mel daal fi doomu Mbàkke tee moo ëpp chance fa nga mooy buubu cas ci tee ay sikki na doomu Mbàkke door na doomu Mbàkke door na door génnal saako yi doomu Mbàkke yor door na ah génnal saako yi ànd moo noonu la ah dafa mel ne buubu cas ma ngay dem ardo ah dafa mel mu mel ne buubu dem na Ardo doom Mbàkke yóbbu na dul doom Mbàkke na buubu cas ki Ardo doom Mbàkke yóbbu na buubu ki Ardo mi ngi noonu ci Ardo doom Mbàkke ngi noonu jël na ay coup baax buubu nàcc na waaw bu saignement bi taxawee rek waaw ñu ngi téye noonu protège bi ci loxo bi ñu ngi koy saxaat ñu ngi saxaat protège bi li nga xam ne donc moom mooy bu doomu Mbàkke dégg nga ko gis nga ko ba léegi daal mi ngi dëggal boppam rek doomu Mbàkke mbaadu dafa dara am war a am avertissement ah. taxawal ñu xool ba xam waaw dañu fomp saignement bi ci yaram ba léegi saignement bi mi ngi wëy ba léegi mi ngi saigné ba léegi mi ngi saigné mais damay ragal ne daal combat bi fa mu jëm nar naa doy waa trop parce que bu fekkee day continuer di saigné ba léegi rek acca c'est bon kon c'est bon kon ñu del siwaat ci combat bi ñoom ñëpp ñu ngi dikkaat ñoom ñëpp dikkaat nan arbitre baa ngi leen di euh, replacé waat arbitre baa ngi leen arbitre sifflé na na ña dem kon nekkoon léewtoo baa ngay tax ña ngay léewtoo ñu ngi léewtoo buuboo ngi dox ci kaw euh, doomu Mbàkke buuboo ngi dox ci kaw doomu Mbàkke ba Mbacké ngi reculé lépp na ba Mbacké ngi arrière ba Mbacké ngi arrière ba Mbacké ngi jéem a dugg génnaan na ci ah bu mu yónni ne Mbacké bu mu doomu aadama ngi ñëw a dugg ay waat na bu mu def nan def naan taxawal bu ma koy bëgg a taxawaloo doomu Mbacké li bëgg doomu Mbacké li mu def doomu Mbacké li bëgg def fekk na benn ci téere yi sànni na buubu sànni na buubu dóor na buubu dóor na buubu dóoraat na buubam sànni doomu Mbàkke gi jéem a ñëw combat bu méttee ngi nii waay waay combat bu métti waay waay combat bu métti te neex waay ay doomu Mbàkke doomu Mbàkke yi bëgg a dugg buubu kar na ko boobu Mbacke sànn boobu Mbacke duggaat na jàppante waat nan jàppante waat nan jàppante waat nan jàppante waat nan jàppante waat nan boobu Mbacke jàpp na boobu Mbacke am na ngemb la boobu Mbacke maa ba ba tey sëñ maa ba ba tey sëñ Maama ba tey arbitre nee na na buubu tas ki demande ardo ba léegi sëñ Maama bi mooy woy nee naa combat bi fa mu nar nag wax dëgg yàlla boo mënee damay ragal mu jóge ci euh, combat bi jeexee ci décision arbitrale. maa ngi seen Abdoulaye Seck sama gannaaw di def ay baay bien rek bi nga xam ne moom moo yar doomu Mbàkke nii. buubu Jaski ñëwaat na buubu bàyyiwut de buubu bàyyiwut ba tey arbitre daa ngi leen di waat sifflé na arbitre sifflé waat na combat bi nag amagul vraiment dox seen amagul euh, pause parce yëpp pause bi maanaam lépp ci ardo bi woon ñu ngi jëm ci ñun jëm ci boori saako yi. ñu ngay léewtoo ñu ngay léewtoo ñu ngay léewtoo gis nga ba léegi mi ngi nàcc ba léegi mi ngi nàcc Boubou Thiasty bu Mbàkke ngay xool bu Mbàkke koy xëcc doomu Mbàkke nag xool lu muy xëccee saako yi. Boubu Ceski mi ngi naaj. Boubu Ceski mi ngi naaj. Boubu Ceski mi ngi naaj. kaw doomu Mbàkke kër Regar ah ñu xalaat jeex na avertissement ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk am na benn avertissement mel leen ngeen bëre nag demaat na si loolu temps bi deuxième round bi ñoom ñaar ñëpp ku nekk am nga deux avertissement diggante Boubou Thiaski ak doomu Mbàkke ba tey fii ci stade Ely bu Diourbel drapeau Bamba l'international le champion d'Afrique euh, organisé par Sidi Diakhaté production le grand promoteur donc nekk mbokk yi kon donc ñoom ñaar ku ci nekk nag am nga beneen avertissement am nga ñaari avertissement maanaam alors léegi nag xam naa ne bii moom du ñàkk na dañuy bëree combat bi ci jeex la jëm combat bi ci jeex la jëm combat bi ci jeex la jëm doom baake doon na jéem a dugg delluwaat bi nee na leen ñëw leen arbitre bi nee na ñëw leen troisième avertissement Boubou Diasky troisième ñëpp ku ci nekk am nga ñetti avertissement loolu nag loolu nag loolu nag buñ ci buñ ci buñ moytuwul nag bu leen arrangé ñoom ñaar ñëpp ah combat bi naqaree jeex du mën a jeexee ci noonu de boobu sànni na buubu doon na buubu def na ko buubu jot na ko rëcc na ko buubu doon na ko doom Mbàkke ngi dóor doom Mbàkke ngi dóor buubu doon boobu fayu xeex ba commencé na nag xeex ba commencé na nag xeex ba commencé na nag buubu li mu bëgg moom mooy siif ko la bëgg doom Mbàkke dóor na doom Mbàkke dóor na doom Mbàkke dóor na doom Mbàkke combat bi yëpp ci côté yi la waaw waaw buubu caske ngi sànni buubu caske fi ne xeex rek la bëgg fi ak moom waaw gisoo waaw ah buubu buuboo ngi yeewu de buuboo ngi ñëw de buuboo ngi ñëw buuboo ngi ñëw ak ay ak ay dóoram buuboo ngi ñëw ak ay dóoram buubu yeewu na buuba ngi ñëw ak doom buuba doom doom Mbàkke ngi reculé doom Mbàkke ngi reculé doom Mbàkke doom Mbàkke jàpp na ko doom Mbàkke jàpp na ko doom Mbàkke jàpp na ko doom Mbàkke jàpp na bàyyante waat nañ ay lay la laa ay lay la fi ne ñoom ñaar ñëpp sonn nañ fi ne nii sonn nañ sonn nañ ñoom ñaar sonn nañ ñoom ñaar sonn nañ ñoom ñaar sonn nañ am na yenn enchaînement yoo xam ne nii boo ko defee foo nga sonn ñu ngi arrière bu doomu Mbàkke gi arrière doomu Mbàkke gi boo génnee rek am avertissement am beneen avertissement rek doomu Mbàkke booy génn di am avertissement taxawal buuba ngi sànni buubu jël na ko del ci waat na ci biir doomu Mbàkke yëpp dikkaat na ci biir doomu Mbàkke dikkaat na buubu li mu bëgg yëpp moom mooy xeex xeexub kaw. waaw li mu sànni dafa bëri moom buubu mi ngi sànni rek. da ngay doorante. te yàlla doom mbàkkee nga arrièreaat doom mbàkkee nga arrièreaat doom mbàkkee nga arrièreaat buubu day dox ci kawam mu ngi ñëw mu ngi ñëw. mu ngi ñëw ñu ngi ñëw ñu ngi warante ah ñii dafa mel ne dafa mel ne taxawatum de dafa mel ne taxawatum de dafa mel ne taxawatum de doomu Mbàkke sànni na doomu Mbàkke sànni na buubu sànni na yoon na Doomu Mbacké jàpp na ko jàpp na ko Doomu Mbacké daan na Boubou Thiaski Doomu Mbacké daan na Boubou Thiaski Doomu Mbacké daan na Boubou Thiaski Doomu Mbacké jël na tànk bi daan na Boubou Thiaski gars yi jël amul feere werante Doomu Mbacké daan na Doomu Mbacké daan na Boubou Thiaski jël amul benn werante ah Papis Doomu Mbacké daan na Doomu Mbacké daan na Boubou Thiaski doom Mbàkke daan na Boubou cas ci jël bu amul benn werante mbokk yi li ñuy xaar rek moom mooy arbitre bi Boy Niang war nga gis Boy Niang sa mbër daan na sa mbër daan na Boy Niang Boy Niang sa mbër daan na moom yàgg yàgg xamoon na fii la jëm moo tax nag xam moom naa ko daan alaaji buur waaw doom Mbàkke waaw gaynde si diggu mandi waaw ku koy xiir wala naa ko yaa waaw booba da ngay say ñeew ñu gis combat bi yàgg lool ak fulla parce que Mbacke waaw moo nekk sama ginnaaw dëgg la te tey wuruma def faute jël naa ay coup waaw mais damaa xam su ma doon tee sax dëgg la barke Alxuraan damay daan fi mu toll ku nekk sa kanam ku nekk sama kanam jeexal naa fi pare naa fi pare nga merci. Ah, waaw waaw waaw Siri tey dama ñëw pour sot parce que doomu Mbàkke buy xewlee doomu Mbàkke yëpp dañoo war a jóg ñëw parce que lan moo tax daf doon ànd ak ñun ci élection yi. kon tey bu bis bu mel ni amee si moom jar na ñun ñëpp ñu dagg suñu yitte ñëw Mbàkke gépp a ngi ci ginnaawam te tey li mu war a def rek la def. mooy daan siggil ñu merci waaw non ñu doon kontaan xam nga lu kontaan moo ñu doon fay di sunu mbër. muy doomu Mbacke. muy rafetlu lépp nag nu ànd ak Moussa Diallo ànd ak. kan ànd ak Fama mais vraiment dañoo kontaan man maay Matar Ndiaye nu kontaan baax baax baax xam nga tax nu kontaan. Uh-huh. gannaaw xam nga ñëw daan dafa neex kon ñoo nga ñaanal doomu Mbacke. di leen ñaanal tamit yéen journaliste yi baax a baax a baax ndax ñi mbàkk ngeen dëkk seen dooma daan suñu kon merci beaucoup grand combat lañ bëgg Dakar bu mag a mag a mag a mbër jaaxle wut ko jàppale ndax vraiment professeur Lamine Fall dafa nekk di ko jàppale kon ñoo ngi ñaangoon grand combat kon noonu promoteur jàppale nu am grand combat eh, daar ñibbi si Bawol eh, waaw mais Sidi dañuy kontaan suñu xol sedd na eh, ndaxte Gris 2 suñu fierté la ñun mm-hmm. de sport moom loxo mu ngi ci biir kon Gris ca kaw ci kanam ci kanam lañu sëg. merci beaucoup baax du baax suñu kontaan. kontaan doomu Mbàkke bu dañuy kontaan. non kontaan nañ trop bari sëñ Bamba Mbàkke rek lañ bëggoon ndam rek lañ bëggoon yàlla defal ko jaaj mais kon gis nga rek bëgg rek bëgg rek buuba buubu lu ñu entraîné nga xajul si parce que lenn la am da doon wax na doomu Mbacke da ngay déplacé gauche déplacé droite ñëw ma doomu Mbacke kii droite la taf ko gauche soo ko tafee centre gravité bi da nga koy xaaj ñaari yoon mooy da ngay toog centre gravité bi saa du baax su xeexee du baax te yow yaa ko gën a chaque jour bul tànn cour coup droite direct chaque jour day ko kor soo ko koree jegel saako saa ko dóoree épéki la ngeen koy xëccoo dafa dégg la parce que moom pied droit su ko tegee day déplacé moo tax pied gauche pied droit pied extérieur moo tax fii suba day bëre rek mais duñu song parce que songkat la suñ ko songul duñu song. jaajëf waaw merci ok. jaajëf euh, félicitations donc euh, xam ngeen ne euh, nii rek la combat bi mënoon a demee man daal am na koo xam ne gisaguma ko moom laay wër mais mais mbër waaw mais wala boog mais mbër wala boog. waaw sa doom day daan na. sama doomu day combat bi mën la ko bëreel. Uh-huh. barki Serigne Mountakha Mbacké. victoire bi sama victoire la. kon combat bi ñun kontaan nañ ci bu baax a baax di kontaan ci waa Mbacke Bawol lépp ñëpp ñëpp gis nañu autorité ñun ñu jàppee ci combat bi rawatina Galo Ba ñu kontaan ci moom bu baax a baax a baax a baax a baax père na doom waa Mbacke yi nañ jàppale seen doom yi waa Mbacke yi nañ jàppale seen doom yi ñun drapeau Mbacke la ñuy défendre Bombardier ni mu dañuy défendre drapeau Mbour mu loo parcelle mu anta kees ñun Mbàkke lañ gëm kon nañ jàppale doomu Mbàkke yi waaw na gaay na gaay nañ ma xaar nag jaajëf ñu xaar ñu damay ñëw waaw incha allah rabbi jaajëf